dalee nag jàmm ci sunu seen youtube képp ku doon gan ci page nag bu fàtte di abonné nga activé cloche bi wax sa bi si vidéo yi parce que lu am solo la sama gars yi donc bu ñu jëmee si kaw Ousmane Sonko démb li nga xamante ni moom moo di euh, discours bu mu doon defee euh, ca Walfadjri donc euh, gis nañ si ay mots yu am solo solo trop trop trop ba population bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax en même temps aussi mi ngi wax ni carrément kaw Barthélémy Dias moom moom jaaxalu ko Ousmane Sonko moom Barthélémy Dias jaaxalu ko benn yoon donc nag ñëw na tamit àddu si kaw ki nga xamante ni moo di idi sec eh, donc nee na carrément idi mom ñëwoon na si li nga xamante ni moo koor gi ba instant bi ni sax challenge boobu noonu ci la tiktokeur yi ak youtubeur yi nekk di eh, defaraat donc mu jëm si eh, Ousmane Sonko li mu waxoon ki xamante ni moo di idi nee na idi dafa ñëw ay heure xëdd fekk ko si biir këram donc nag pour amal ak moom waxtaan donc nag Ousmane Sonko si loolu la doon àddu mais tamit daal dafa jàpp retandu trop trop trop ni mu ko waxee parce que xam na ni carrément heure boobu noonu moom képp nga xamante ni kilifa nga yaa ngi waroon des sa kër après nga gérer sa famille mais daal ñëpp nekk kilifa yëpp nekk seen kër yow nga nekk kilifa bi nga xamante ni ah, da nga nekk di wër si ah, kër jàmbur yi pour rek amal ay waxtaan donc Ousmane Sonko nag nee na loolu jaaxaloon na ko trop trop trop trop trop mais tamit dafa bëggoon Idrissa dellu fi nga xamante ni moo fa la mais daal dafa doxal xolu yërmande si la ko mujjee accueillir daal di waxtaan ak moom ne ko carrément ah yow lan moo la tax a ñëw fii nii tey heure bi nii xanaa tey xëddogoo donc si la ko Idrissa Seck ne carrément man de si yow laa yaakaaree xëdd donc mu nekkoon ay mots yi nga xamante ni wax dëgg yàlla instant yi sénégalais ñu ngi tiktok mais daal jàpp leen ni carrément Ousmane Sonko daal jàmm la bëgg suñu réew te jàmm moo fi am donc daal képp ki nga xamante ni bëgg nga leneen leneen leneen rek di ko fi fekk mais daal Ousmane Sonko jàmm moo ko tax jóg donc ñi ngi xaar li nga xamante moo di procès le 23 bii nii di ñëw incha allah rabi ñu jàll si ak jàmm ak salaam ko continuer di wéy si li nga xamante ni moo di euh, euh, mille focus 2024